daje bi ñu daje tey euh, liggéey njëkk mooy waxtaanee lu jëm ci màggal Touba ndaxte dañoo jëm bis boo xam ne bi bis bu rëy la ci yoonu murit te euh, sëriñ bi santaane ci ñëpp di ko ci santale yàlla ba tax na hôpital bi itam ñi nga xam ne ñooy ñëw fii ci biir màggal gi bu ñu sañoon bu ñëwee fii ci hôpital bi am ay jafe-jafe yaram ñu taxaw ci ba mat sëkk loolu moo tax ñu dogal juróomi fan yoo xam ne bi ñaari fan yu jiitu màggal gi ak bisu màggal gi ak ñaari fan yu topp ci màggal gi képp koo xam ne kii da nga ñëwoon màggal si wala nga am ay jafe-jafe wér-gu-yaram ñu jàllale la fii ci hôpital bi fexe ba faj la ci wàllu consultation bu dee ay rajo la laaj ñu def la rajo su laajee itam ay analyse wala opération ñu defal la ko bu laajee ay garab tam te mu am fi ñu jox la garab yooyu te doo ci fay dara ñu juróomi fan yoo xam ne bii dañ koy def ay consultation médicale gratuite euh, loolu nag pour mën a nekk am na ay kuréel yu ñu tënk fi yu ñu fii ci biir bi benn bi kuréel la boo xam ne dafa lëkkale docteur yi faj ci biir bi ñoom ñuy saytu nu ñuy defee garde yi ak nu ñuy doxalee mbi paju ba nga xam te ne bi képp ku ñëw ñu man la euh, faj am na tam beneen kuréel boo xam ne bi waa administration ñoo koy féetewoo ñooñu ñooy toppatoo li nga xam ne moo jëm ci wàllu xéewal yi moo jëm ci wàllu dëkk euh, ni ñuy dalale gan yi ndaxte am na ay gan yoo xam ne bi ay fajkat lañu yu jóge dakaar ak ci yeneen gox ci Sénégal yoo xam ne bi dañuy ñëw jàppale si hôpital bi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey kon ñoo ñëpp dañuy boole liggéey bi lëkkaloo pour que euh, képp koo xam ne kii suñu borom dafa dogal bi nga ñëwee ci biir màggal gi nga am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ba ñu indi la fii ci hôpital bi ñu mën a fexe ba def ci suñu kéemtalaay kàttan ci jëm koo saafara ginnaaw bu loolu jàllee euh, dañuy tënk rek euh, li nga xam ni maanaam at ngi nii wala at a genn wàll ñu ngi koy liggéey ci biir hôpital bi mu jëm ci euh, fexe ba ñi nga xam ne ñooy ñëw fii maanaam ñu yokk di leen taxaw yokk di leen déglu fexe itam ba paj mi leen di paj mu nekk paj moo xam ne paj mu mucc ayib la ndaxte dafa nekk bërëb boo xam ne bii bërëb bu yaakaaru la bërëb boo xam ne bi nit ñi dañ ci am yaakaar te di ko di ci ñëw ndaxte li koy firndeel mooy bi ñuy xayma li ñuy def daaw ci atum 2021 ak li ñuy def ci juróom-benn weer ñi nga xam ne mooy weesu muy janvier ba juin dañoo seetlu ni maanaam liy ñëw ci hôpital bi lim bi gën na yokk ci fànn yëpp ci wàllu consultation ci wàllu hospitalisation ci wàllu même opération ak ñuy juddoog yooyu muy accouchement yooyu yëpp dañoo yokku boo xoolee sax poche deret yi ñuy joxe itam poche yi itam yokku na boo demee ci centre dialyse bi itam maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy euh, defal ay dialyse ñooñu itam seen euh, lim dafa yokk kon loolu mën naa tegtale ni hôpital bi nit ñi am nañ yaakaar ci moom te wóolu nañ ko li muy am am ay jafe-jafe léeg-léeg ci wàllu paj meeg yu demee noonu wala ci wàllu accueil beeg yooyu ñi nit ñi quand même ñi ngi ñëw te loolu itam liggéey boobu ñuy liggéey jural nañu euh, ñu fexe ba li ñuy waxoon dañ koy wut ci wàllu xaalis pour am ko ci biir hôpital bi loolu am nañ ko te bu ñu ko amee itam jëm nañ ko ci ay dépenses yoo xam ne bi dafa jëmaat ci askan bi ndaxte li ñuy liggéey muy euh, xaalis bi nga xam ne moo ciy génnee dafa am ñetti pàcc yu muy jëm benn bi mu ngi jëm ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo fiy liggéey waaye benn bi tam mi ngi jëm ci biir hôpital bi parce que maanaam nekkin wi ci biir hôpital bi daf ñoo soxal ba nga xam te ni bii kenn ku nekk boo dee faj wala yow nga nekk malaat fi ngay nekk di ko tëdd ñu fexe ba ñoŋal ko loolu moo waral ñu def ay liggéey di def ay jënd ay climatiseur di jënd ay mobilier de di jéem a tabaxaat defar ay peinture di defar ay carrelage di fexe ba muy set pour que nit ñi bu ñëwee mën nekk ci ay anam yu rafet. loolu tam mën nañoo xayma ni ci euh, at mi weesu muy mille 2021 daanaka euh, ñaar ñaari ñaari téeméeri million ak juróom fukk ak juróom jël nañ ko ci xaalis bi ñuy waroon a jël ci fonctionnement bi sàkk nal ko pour def ci ay investissement moo waral ñu mën a jënd ay matériel médical jënd am aussi yeneen équipement yoo xam ne moo ànd ak ñoom pour wàllu liggéey bi gis nañ tam ni euh, dépense yi nga xam ne moom la ñu waroon def jëmale ko ci wàllu euh, personnel beeg yooyu ñu ngi koy jéem a fexe ba di ko saytu ba mu nekk dépense yoo xam ne bi ñuy maîtriser lay bu loolu waaye weesoo tam am na yeneen yu jëm ci maintenance parce que ku ne hôpital tam di nga wax maintenance maanaam bagage yi fi nekk ak machine yi fi nekk bu ñu fexe ba saytoo leen waaye ñun suñu taxawaay mooy fexe ba machine yëpp di dox loolu moo waral ñu tëral ay contrat de maintenance ak ñoo xam ne bi ñoo nga nekk Dakar di saytu machine yooyu ñaari weer wala ñetti weer yu nekk ñu ñëw bu ñëwee saytu ko xool ba xam ndax mi ngi doo xam déet te su paanee itam ñu jéem a def ay pexe bu gaaw réparé ko pour que nit ñi mën koo jëriñoo ci wàllu hygiène ak sécurité maanaam cet gi tam ak kaaraange gi loolu tam ay jéego yu am na ci ndax te fexe nañu ba jéem a def ci hôpital ay carreaux ak ay pavage def ci ay fleur pour euh, pour que nit ñi maanaam gën a nekk nekkin wu rafet ci biir hôpital bi boo demee itam ci service social li ci mën a tënk mooy hôpital bi maanaam bari na ay nit ñu néew doole ñu muy dimbali ndaxte dañoo xam ni dëkk bi ñu nekk dëkku euh, ndimbal ndimbalante la dëkku daara la te nit ñi tam am na ñu bari ñoo xam ne bii seen loxo jotu seen ginnaaw ba tax na boo xaymaa ci atum 2021 daanaka lu ëpp ñaari junniy nit ñëw nañ di sàkku ñu wàññi leen seenu paj wala ñu woyofal ko ba nga xam ne bii nañ ko mën a supporter te loolu tam fexe na ñu def ko ba biñ koy xayma daanaka yegg na ci juróom-ñetti fukki millions yoo xam bi dépense nañ ko ci loolu kon loolu day firndeel ni maanaam hôpital bi ñu ngi jéem a jàppale askan wi ci seen wàllu payoor ci aussi li nga xam ne moom la ñu fa war a fay pour mën a jot ci ci paj mi loolu ñu def nag ci atum 2021 boo ko xaymaa tam ci atum 2022 maanaam juróom-benn weer yi nga xam ne moo tàmbali woon janvier ba juin daanaka euh, portale bi noonu lay toll noonu noonu melaat maanaam activité yi ñu doon def 2021 moom la ñuy continuer di ko def actuellement 2022 kon daal ci gàttal loolu la ñu waxoon dañ koy tënk jëm leen ko xamal pour que mu leer ci bopp askan wi te di wax ne ji ngi gën a euh, remercier ñi nga xam ne ñooy journalistes yi parce que li ñuy def tam bu ñu ko def fii te ñu ñu koy defal xamuñu ko du jariñ lu bari te yéen yéen fexe ba nit ñi mën a xam li ñu def ci biir bi kon nag am nañu euh, ñu ngi leen di sant sant boo xam ne bi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem jël ngeen jëf